Mauritanie dominé leen si match bi mais gagné ngeen quand même. Ah, mais xanaa woon match bi comme que moom dina demee nekk ak contexte bu muy joxe rek mais gis nañ ni bi dañoo ñëw ñoom ñu sëppañu boo tax ñu tamit jël suñu temps xaw a lucide jéem a a fexe tout ba créer benn occasion ba leen score. gis ngeen gis ci match bi ngeen euh, def benn euh, round ci biir digg bi lan ngeen doon wax ci biir noonu au milieu. waaw loolu noonu ku ñu lissi la rek ku ñu lissi la rek parce que instant boobu noonu ñoom ñu ngi dominé ñoom ñu ngi nekk seen temps fort instant boobu noonu moo tax gars yi ba kiiwee noonu ñu ne pour ñu calme tey jéem a fexe tout ba jéem a xool nu ñuy sàmmee suñuy camp rek. Sénégal qualifié na ci demi-finale CHAN 13 ans après lan la leen def yéen ñu bokk ci acteurs yi. Ah, wax dëgg yàlla moom ab mbégte la ak mbégte ak sentiment satisfaction bu garaaw la parce que liggéey nañ ko quoi liggéey nañ ko foofu lu mu dee dee dee liggéey nañ parce que